am luma japon na la ci sama jikko diko def jàpp ne Ada dama man na fa tollu ba mu yegg fa jàpp ne war na doxi nga and ak mom mu lo la tek ci suuf mm-hmm. mu di yeddeel ci yow mm-hmm. li ci jekk moy te nañ ko fi legi moy seen bu ni lay nit mm-hmm. ku mat ak nitam lay waye tegginam ak wormam ak dundu gi bi suñu yoon wii jàll sëñ bi da cee feeñalaat boppam ci digganteem ak moom ndax dama ne ko man ba ñu départ rek dama mel ne ab historien boo xam ne damay marqué di bind ndax dafay nekk njariñ ci man ci lan laay jàngat ci moom wayef gi ak baax gi ak dimbalee gi ak yërmande ci te loolu lu mu defit da koy delloo rek ci sëñ bi lu mu liggéey da koy delloowaat ci sëñ bi dafa am baat bu mu wax ci Madina wax naa ko barki démb ma ne ko sëñ bi de lii moom woyof geeg eh, modeste gi daal ëpp na mu ne ma nit lu mu gën a nite ca la gëne nit lu mu gën a nite ca la gëne kon léegi-léeg nga bëgg a yéegal sa bopp foo xam ne eh, mën naa mën na laa sonal te fekk ndeke li ngay li ngay nitee wàccee ci sa bopp def li ñuy tuddee tawaadoo lolu mo lay yëkkati mm-hmm. da akki doom adama da ko xam ci meloka mu ne mm-hmm. gis nga dañ ni da ngay and ak mom léegi-léegi nit bëgg ko taxi dara sax ci ci pré ci jëli bagage wala ñun ñi ñu bëgg jaayante gaddu bagage yi mm-hmm. ñeneen ñu bëgg ko pousse ci sérieux yooyu lam lay wax moy bayil ñi gàddu ñi tek ko ci seen bagage yi ndax li tax mooy ci lañu suturo te kenn tas yaaka ci kenn du tas yaakaar wala mu gis nit yéene yéene ko loo xam ne doo xam ne na muy demee wala sax mu jël lam yor man ko koo man man man ko koo jox te yéene jooju moo koy waral bi ñu ñëwee Madina di dugg ci barab yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bari loo xam nit sax mën na ko bañ a tal ndax bunt ba bañ ko yaatalee bunt ba muy jàll nit ñi yitte gi nit ñi am a xër gi ñuy xër ci yonent bi alayhi salaatu waaye bi mu teg tegg tànkam ci bunt bi rek la mu jëkk def mooy fii nag dee si sol mbaxana màggale ko suñu sëriñub sëriñ ba kon mi ngi lay am lu mu lay jàngal. Mm-hmm. waaye bi ñu dugg see li gën yéeme mooy. Mm-hmm. sëñ bi ci boppam moom ñi nekkoon ci liggéey bi di léggéey mm-hmm. nga xam ne ñoom da am sa yitte sa di wax ñoom doo leen wuy. ñoom ña doon liggéey ñoo ko doon xàllal fan. di xàll ba ñi ni fekk ñu liggéey it. dañ leen di xàllaloo di di di ngir ba xam ne loolu dafa yéeme ci sëñ bi ba waxtu wu ne dañ koy waxtaanee ci lépp di doon sëriñ bi waaye yërmande sëñ Abdou Samad ak fonk nitam. ak jàngal nit ki sëñ Touba nga xam ne lu muy def sëñ bi da koy def ci hmm. sëñ bi rek a tax ma di ko delloo hmm. sëñ Abdou Samane yi wax na ko léegi hmm. kilifaam gu baax kii di Cheikh Amadou Mountakha nga xam ne waxtu ne yow miy wane ne ab taalibe nga moom da lay gën a wanaat moom yow ne sax wetees bi ngay dox néew na ci sa digganteeg sëñ bi ndax ni ni muy def sëñ Mountakha ci ñaar ak fonkeel ak jàpp ne lu mu gis bëtam tege ci mu jag te rafet rek seigne sëñ Mountakha mom lol hmm. lolou dama ko jangat ci biir doxine wo mu don dox. Hmm. te Serigne Touba jim lay won waxtu wu nek mom mi la koy won mo la ci jeuk jeuk jeuk dund. Hmm. mo la koy jeuk woné jotaay bi ñuy tok rek loolu la ci firnde gis nga jalla bi dem na ba ci nar bañ ko don ñay man lu ko gëna cher bari wu cher na lol karab bim koy jël. bi muy jënd jàllaay bi nga xam ne am nañu ne ci dëkk bi réew mi di ay kilifa mu commandé leen ci ñawlu leen ci mm-hmm. ay millions la ci fay mm-hmm. waxuma ay junni ay millions la ci fay mm-hmm. te arrivage bi muy ñëw la ma ko wax mooy sëñ bi de fekk naar bi sax moom da koy laaj yu jëkkee anam mhm. nga xam ne bu mu ca mën a koy joxe nga xam ne lim lim lu mu ca lu waxtu yu mu koy wut mhm. nga yëg ne jekk na rafet na mhm. booba sëñ Abdou fi ne xel maa ngi ci ki nga koy jox oh, waaw ci day fetal waaw te yow te yow da ngay yëg euh, melokaan woowu na muy mel ak doxin woowu na muy loolu nag bëgg sëñ Tuubaa rek moo ko ko may waaye it sëriñ bi ci boppam noo ko def mu def la ni feeñ na ci ndax li ko ëmbal cofeel ci àdduna ak fonkeel kere bi ñuy déparé fii maanaam man nga ne foo ko murid yi séen ci biir ay déport yeeg biir jataay yeeg dañuy fàtte seen bopp sax mm-hmm. ngeen léegi-léegi nit na ko yaama dolle woon nangam ci xasida sàngam mm-hmm. yaama laaye biir woon nangam mm-hmm. nga xam ne jëriñ gi muy jëriñ nit ñi ci biir lim xam ci Serigne Touba ak di ko dimbalee nit ñi rek doy na sëkk ab liggéey kon kenn ku ne ci ni sëñ Ahmadou waxoon léegi yu baax yi nit ñi wax di ko seere ne kenn ku ne mën na ko waxal sa baa ci gën a jure mën naa nuru dara fekk na am na ñu ñoo jàpp ne sax ñoo ca gën a ñoo ca gën a maa ca gën a nangam fekk loolu lay dem man mën naa ko seere ci sama jëmi bokk ndax du am lenn lu tax moom mii lu mu lay jàppee lu may séen la nga ne ci toolub sëñ bi mi ngi mel ni ñax mii tey ku yoroonub goppam di jéem a bàyyantu wala nga yor sab radu di jéem a radu la nga cay yëfus yëfus sëñ Abdou du gis yow sag man a bay ak sa tëlee bay la muy gis mooy yéene ji nga am yow ba bëgg ñax bi jóg te tool bi mooy toolu Sëriñ Tuubaa bi ci lay jàpp ci loolu la lay jàpp ci ci moom laa gisee ki bari na kilifa koo xam ne mën ngaa sori fa nga nekk batale sa ñoñ waaye bu tukkee sax ñi fi bàyyi ñooy gën a sonn ci bi fi nekkee ndax bëggul jenn yitte ju tàbb ci nopp te du faju ak fu koy mën a fekk ak dox yi nu muy mën a doon kon sëñ bi nun ñëpp amel nañu ak cant amel nañ la njukkal muy bokk gi muy taalibe yi taalibe yi nag dañoo am yaakaar ju ci yow ndax yaakaar gi mooy léegi-léegi yokkat ab yokkat gi mooy Euh, nit bu bëggee dara té man na baña xam légui légui nit bëgg ko caa découragé sax waye bu déggé sa cadeau sa pësif ak sa doxine barki dem dama am benn vidéo ma gis ma téyewaat ko suñ mun taxaa waxal ko bu wax né dama nan gëj ci dëkk bi waye yow dama jàngé wat yow sëriñ bi xam nga loolu bu fekkoon ne da nga lan dégg ñoom sëñ bi ko wax ak waye ba man daanaa dégg wax ja waaye ba ma ko gisee la sama bop mané nak tay ji xolal li Cheikh Mouhamadul Mountakha wax nit da dana ko taggé yaa ma jëkk jox nanga muy addiyee yaa ma jëkk a mm. jébal nangam muy muy addiyee mm. waaye ku xool tey sëñ Muntaxa fi mu toll ci pas-pas mm. ak jeex ci Serigne Touba nga xam ne vitesse am man nga ne kenn amul woo waxel ku mu jox xar bi war ne dama dama yow mii laa doon jàng ci yow sëñ bi wala damay dolli koo ci yow sëñ bi kon alhamdulilah ñun ñi nga xam dañ koy déglu mu dañu soññ sëñ bi dina dolli si waat sëñ bi te loolu kenn ku ne mën na ko seere ci biir ñi bokkal dimbalee na taalibe sëñ Touba yi nu Sering bi nak kenn da ca wurtu am loolu serigne Mbacke Diop kalsan don wax ne luma ca wax kuko weddi alko loolu serigne Ibrahima Diop bayam lako bind tabban li mubqidihi tabban li munkirihi tabban li hasidihi tabban li man anada kon kon kon alkande day ñeel kuko Bangga weddi ba nga kañane ko ba nga sik sak mbiram tay daf daf ñoo jangal le kon kenn ta umpale mbirum serigne touba darayna sabquka kulla alaalamina bila raybin siwa ahmaqin aw xaasidin aari mooy ñooñu nag adduna bépp xam nañu yaa jiitu ñi ko umpale nag mooy ku kañaan baa alku baa ku texee di baab dof waaw baab dof ñoo ñoo ne yow yaa jiitu kon moom sëñ Tuubaa lay xool ci ku ne te tey ëtti ëtti njaboot yi ñi sëñ Tuubaa defar gërëm leen nga xam ne kenn ku nekk jërëjëfi sëriñ Tuubaa moo la def moo moo moo yor fa nga ne ken ku ne si sama bu ab tal la yorna wupp di ko wupp baa mu jël ca gànj di fénge baa mu jël mat rofat ca ngir tal ba bëgg nañ toog te moo tax boo ñëwee ci ëttam mo lem ñi sëñ touba gëremul seen mam jabor googu ñëpp nga fay fekk ab jataayam it li tax mu non jotaay bu bu da damay wax ne jotaay bi sëñ da nga fay fekk ku xam ba gi jël wattu alquran fekk fa ko bu doon jekku nako ci ay moyen wala mu jekk ko ci doon dara ci fa yëngu wala bu ci ab juddu ñu ne di woo ko jur ci aw askan jataayub Sëriñ Abdou Samad la nga cee mën a xàmmee mooy xanaa mu lal ab moket ngir waromaale kenn ku ne waaye du du ca waxe kii nii wala mu jànnee ci kii ka gën a néew kattan wala mu gën a néew doole ci zahir mm-hmm. wala muy sàkku ndimbal mm-hmm. bu ñëwee moom lay gën a jox nopp sax ci kenn mm-hmm. te loolu jafe na ab jataayam di su fa kenn dee su fa béccingal kenn mhm. ab jataay bi dee su fa toog di am bakkaar ndax dee su fa jëw kenn ku ne la nga xam ci sëñ Tuubaa bañ nag booy jëm sëñ Abdou sax mhm. yaa ngi seet looy xam ci sëñ bi ba boo ñëwee mën koo wax ndax loolu lool lool lool lool lool loolu mhm. lay dund nga xam ne la nga koy bégalee moom mooy euh, sëñ bi nga xam ne doon ko ne yow li ngay wax moom xam na ko yow bi nga koy wax li ko ciy ñor mooy mm-hmm. yitte ji nga def ki xam ko mm-hmm. nga xam ne sëñ doom bu sañoon fi ne mm-hmm. ñëpp sëñ bi la ñuy wax lépp sëñ bi la ñuy dund booy ñëw indi andi andi andaale dara lu bees nga xam ne dalay li ab gëstu dolli la yitte loolu lool loolu lool lool loolu nag Mbàkke yàlla na loolu la yàlla fayal yàggal la fi lool ndax sëñ Tuubaa de yi <coughs> dama koy faral di wax kenn deful lu tax mu def la ni nga mel kenn jikom rek ak meloom ak baxam mom la yërëme ñep kon ku def ni nga mel yir ñep jabote len moy ni señ tuba bëgg ku ni mel moy ni señ tuba nak señ bi ci bopam bu doon day fayanto wala muy topé aduna tukki bu doon lu ko way def bu doon lu mu jox nitit nga def ci lu wuur mu nangu ko ñu bari ñak seeni cër te ku dul moom it lu mu la defal bis dana ñëw mu ne waaye de daa nangam waaye man a sëñ bi mosu ko wax ci kenn bu la duyelee ba nga giijal boo ko wanee ginnaaw maag càgg du ko ci romb. daal da nga fekk sa waxtaan dem bi. ah alhamdulilah ah. barki waaw. kenn koo xam ne dana ne maako ko nangam mm. amut. Mm. te moom xam na ne lu xew mooma. te moom moom lépp moom. Ah, ah, waaw fekkee mm, nga ah. am am na am na bis boo xam ne rek atte ko. am ñu biijoo mu am ñu lu mu cay waxtaanee ñoom. am ca ku mel ni gis na boppam ca loola. na ko nangam de bu ko naree def. jaral na ma sax dem sawar. mu ne ko ak cam tudd nga foo xamut. te defu loolu la fa tee dem. man mii rek la leen yàlla rusi. te te moom du bàkku ci dara. moom yëngal lépp ah, moom mu tax ñuy bàkku du bàkku ci dara. moom yëngal lépp ah, te te te doo wax ba mu ne moo ne bu ko jëloon nga ñàkk ko. Mm-hmm. doo wax ba mu ne la ah moo ne xanaa a. tab buy fàtte la. waaw da lay bàyyee la nga la nga la nga la nga la nga moo tax. ba ma samay kenn ba nangu. ba nangu ku ma saab ba mu gesu. ba mu gesu amul. sëñ Gana tab buy fàtte la. sëñ xam nga sëñ Ibrahima Masar lu mu ko wax. Mm-hmm. Mm-hmm. yubdi mm-hmm. wa yuxfi taaratan mm-hmm. sadaqaatihi fa yaudu saailuhu ka an lam yasal kooku moo bëri sutura kenn mu sa gis ma wallahi wallahi wallahi ndax ndax am na loo xam ne dana fàng moom nit ñëw nga defar ko defar ko loolu tax mu ne yubdi wa yux fii taaratan sadaqaat yi am na koo xam ne ci suuf la koy fajale aajo fa yaudu saailuhu ka an lam yasal kooku daal kenn la sëñ bi kooku daal sëñ bi moo nu gën a. waaw ah, waaw moo nu gën a daal moo nu gën a. waaw waaw ah, gën moo dara. alhamdulilah sëñ Mbacke mu wax ca kaw wala mu re mm-hmm. ku tedd ki lañ